mais quand même ñu gis ni euh, ki na xam ne moo di moom euh, Ousmane Sonko kàddu yi nga xam ne itam yëkki na ko ba tey mu daal taxaw si benn taxaw que ni day doon li nga xam ne moo di candidat mais est-ce que Abdoul sa ultime conviction jàppoon itam Euh, cette candidature est menacée euh, le moment où peut-être tey jii ñu daal di jàpp ni euh, ki n'a xam ne moo di Ousmane Sonko ñaari dossier mi si kawam benn bi diffamation ben bi aussi crime de diffamation ben ben ben aussi du crime yex ci nga xam ne di di corruption à la jeunesse donc franchement on est mëna japp ni ce sera peut-être ben fardeau bouddhiste dis et que sa candidature est menacée de partout. bon sa candidature c'est vrai comme nous ko waxé mëna d'accord sa candidature est menacée mais bu len faté que ne tay nak aussi tey Fallou dama leen di wax ne que gars yi dañu faral wax ni ne au-dessus de la loi. Hmm. Hmm. mais demain faral wax né loi boobu bu bu mënu tak mënu convaincre exemple tay hmm. la masse populaire. il est évident ñu remettre en question cette droit. wala cette loi. parce que nak aussi tey gëm naa tey justice bi fi nekk depuis indépendance ba léegi mom mo fi nek dañuy tracel lu metti metti les Sénégalais acceptent de se soumettre. pourquoi pas cette fois nag justice boobu mënu tracer la majeure partie des Sénégalais accepté ko tey dem nañ jugement ñu joxe verdict ñu gis lu fi xew mais non laisse-moi peut être euh, <laughs> am nañu xam nga de xam nga la population bi PAM ne hmm. je pense que tay tollo tollootuñ fu nga xamné ne hmm. affaire loi la wala hmm. la. vision pour Sénégal nan lañuy def ba jàmm am fi hmm. suñu vision Sénégal mooy nan lañuy def ba dem des élections transparentes apaisées inclusives hmm. képp kuy candidat bokk ci hmm. te yépp lu nga xam ne jàpp nañ ne dossier bu mën a taal dëkk bi la jëm rasul moom mi nga xam ne mooy président la comme révoqué na code d'honneur ne révoqué na le respect de la parole te moom moo ñu waxoon toujours ma répète ma bamtuwaat ko am na ay dossiers yu nga xam ne te du ma leen xool ñu taal si ñu taal dëkk bi jëm rasul je pense que tous ces terrains dañu ko remettre à côté. Hmm. mu woote dialogue bu nga xam ça sera un dialogue sincère entre leaders. Hmm. parce que ça quand même. yéen a dialogue boobu ren moom ça quand même c' ça quand même un grand non waxuñu dialogue wuñu pour dialogue wuñu wax day leer. on avait dit euh, que dialogue wuñu on avait on avait mis nos conditions. voilà man aussi hmm. contexte bobu la bu fekkee dialogue na am il faut que ay conditions tok na ku nekatul président. amna nga xam ne aussi tey fàllu mënuñu tok di dialoguer alors que tey mun naan plus de sept cent jeunes hmm. suñuy naw la ñu ngi dans des prisons hmm. ñun ñëpp wax ku nekk yaa ngi xaar tey boo waxee boo pare ñu jàpp tëj la prison dem tey boo ñëpp gëm nañ ne léegi sax dem prison nekkatul dara ok alors euh, ba tey si wàllu wunu mel ñu gis ni euh, ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko laaj na ko ma xam ne laa assigné sa kër wala kon sax euh, dangaa nekk si li nga xam ne moo di mm, justement détenu politique moom nee na kenn assigné wu ko da ko daal di téye de façon illégale téye boo xam ni itam moom ministre de l'intérieur ak li nga xam ne moo di le ministre de la justice mun si indi ay explications allant dans sens exactement alors là aussi barricade bu Ousmane Sonko Ousmane Sonko nee na des fois da am ay courant day jàkkoonte ay coupure ay yenn si ay conditions difficiles yi nga xam ni itam mu ngi la cité kër góor gi donc li ñu mën a jàpp à son assignation moom jàpp nañu du assignation mais plutôt euh, da nga kaa illégalement sans aucune décision de la justice. Hmm? Ah, bon si loolu moom foog naa wax nañ ci waxaat nañ ci. Hmm. Euh, tey dafa am lu nga xam aussi boo nekkee si dëkk di ko jëfal. Hmm. bu yàggee da ngay jàpp du sa auprès de la population. parce que nag aussi séquestration boobu bu ñu ko njëkkee def. amoon confrontation man boog depuis l'indépendance du Sénégal ba léegi maa ngi koy door a gis. boo xam musul am de mais maa koy door a gis ñu jàpp candidat bloqué ko. Je bu nga xam ne. Hmm. même bu dul candidat sax. Ousmane Sanko est un citoyen libre comme tout le monde. Hmm. am ay droits am ay devoirs. am. des droits va et vient dem ay soxlam ko nga ne notification de la justice que personne bi ko dans dans sa maison. parce que nag aussi prisonnier à domicile même prisonnier bu nga la ngi mais est-ce que je di mais non pardon est-ce que nekkul plus penam indirectement. non ba xam nga tey xam nga tay Sëñ Fall man gëm bon mos nga loolu ban loi la ak ban article moo wax fu nit war a mun piser penam indirectement yàgg na la ko wax ma la bu fekente ne Ousmane Sonko dañ ko wara a dañ ko dem hmm mom sa wax na ko ah. hmm. ne état bi tak fitam dem jàpp ko mais liñ koy def c'est gëna gën a yablu justice Sénégal devant la population sénégalaise et ce qui ne doit pas être. hmm. parce que nag aussi tay jëmm ji topp nga ko wax naa depuis 3 ans. askanam ne la doo ko mos a toroxal mm. da ngay gëm da ngay nangu dogal yàlla mm. parfois nag aussi dañu xam ne nguur yàllaa ko yor dañuy nangu dogal yàlla force bu yàlla jox jëmm ji bu ñu ko ko nangule rek kenn du sonn mm. wasalaam alors euh, ba tey si bobu dañu xam ne que modi barricade mais quand même condition yi nga xam tam itam avancé na ko euh, na si nga xamné que modi peut-être des fois euh, manque d'électricité entre autres entre autres jamono di est-ce que jàpp donc Ousmane Sonko le ni nii condamné wala kon njabootam yëpp leen condamné wala kon c'est tout un quartier qui a été condamné à la danse démb rek barke demu jaar naa fa dem réunion F24 hmm. bu ma duggee quartier bi sama yaram dafa daw hmm. parce que nak aussi même bu Ousmane Sonko kep kuy doomi Sénégal rek am na condition nga xam ne boo gisee ñu teg ko sa nawle sa moromu jullit wala doomi arab ñu teg ko ko rek boo doona julit war na la mun a laal c'est que j'ai vu vraiment c'est c'est c'est dangereux Fallou man mais loo gis exactement sur non lu ma gis mooy que ne bon comme criminel quoi man je vois que ne parce que ñu ngi barricadé kër jambour comme kuy barricadé un criminel wala ku nga xam ne quand même voilà il est quelqu'un qui est dangereux pour notre société je ne comprends pas je me suis posé la question ban hmm. dégâts Ousmane Sonko def hmm ban dégâts Ousmane Sonko def mériter une telle euh, comment dire encore situation tellement compliqué on voit la police partout barricadée mel ni que ne que voilà c'est en tout cas c'est compliqué hmm. Tu wax na ni lii ku fa jaar même bo, même bo antoon ak mom sax hmm. sa xol day fipp nga ànd ak parce que nak au Sénégal yi nanguñu injustice hmm. sénégalais yi mosuñu nangu injustice mun naa mais injustice la acte injustice la parce que aussi euh, Ismaël Madior Fall ak ñoom Antoine Félix Diome jàpp ils ni euh, lu nu mel yoon permettre ko peut-être pour nous, war a mën fournir aucune explication que ni c'est pour maintenir l'ordre et le maintien public. xam nga tey bon sëñ Fall loolu bu muy am bu fekkoon ne xam nga tey gouvernement souvent je disais que bokk nañ si yu tax Sénégal yi gën a ñàkk a respecté Macky Sall. suñu gouvernement en fait partie. Hmm. lu tax. Hmm. damaa jàpp ne lu mel ni buy am. Hmm. en tant que ministère de l'intérieur nous bindee communiquer communiqué expliquer pourquoi. Hmm. ñu jàpp Ousmane Sonko si àll bi indi ko Dakar. il veut rédiger un communiqué bu nga xam que day sur la loi avec avec un texte régulièrement ñu xam que tey mu explique ko mu leeral li ak li ak li ak li motax ñu téye le président nañ ko séquestrer que dam léegi Sénégal yi xamee ko non ñu jéki jéki la personne bloqué ko du mbokam du famille am du ko ko jégué personne am personne sort xamuñu ci lan la nek ci li nga xamné ne kenn gis dans l'histoire looy gis. mais mi ngi si jàmm Sénégal mi ngi def ay sortem mi ngi def ay sortem Sénégal lu ñu jàpp mooy. Ah. matin lañ ko bëgg a def ñoo yor force ñoo la ëpp doole dañ lay bloqué sa kër. Hmm. lu ñu la neex lañ lay def comme comme Idrissa Seck mi ko waxee ne ko coppet yow bu gis naa bon vidéo def buzz dans les réseaux sociaux. Hmm. mais je pense que nag tey.

fu mu waxee day rassural nit ki ne yoolu ma en dara. Hmm. parce que man bon constat bu ma gis foofu mooy du mu bugg a comprendre mooy. Hmm. dem na boo xam ne que ne ñu ñu mu jàkkaarloo dañu koo ragal. Hmm. Sénégalais exemple le gouvernement bi nga xam ne que ne jàpp na ay adversaires am futur ca élections dañ ko xaw a ragal luñ ko ragalee mooy au cas où jëmm ji force bu mu am tey dans ce bu demee élection mun na gagné est-ce que bu gagné du répercuté wu seen seen seen seen kaw te gëw ma ne président Ousmane Sonko bi ma gis kuy defante la wala ku nga xam ne day ñëw pour fayeeku wala pour venger kon boog projet Pastef bu mu doon mais euh, mais peut-être euh, gars yi loolu leen xam nga tay dama japp ne ku maîtriser projet Pastef xam ne projet Pastef vi nekul projet pour défendre hmm. Ousmane Sonko a présenté les Sénégalais un projet bien clair et net hmm, hmm. projet bu nga xam ne gëm nañ ne mom moy dini jafé jafé bi nga xam ne que tey askan Sénégal mu koy dund projet bi nga xam ne que japp nañ te mom moy renouer tous les contrats yi nga xam ne que tay nekkuñu à la faveur des Sénégalais japp na tey projet bi nga xam ne mooy permettre tay l'Afrique en général amane indépendance totale

Abdoulaye Wade impose leen troisième mandat Macky Sall avait le courage de faire face ne leen troisième mandat du fi am ñoom ñu ñëw accompagner ko si loolu wax la kene tay tey man lu ma gën ko félicité na si ñëwaat. Euh, dinañ si ñëw euh, troisième mandat non xam nga dafa am importance si cas bi quoi. le pour le pour important moy le plus important l' importance mooy peut-être sénégalais buñ koy fal faluñu ko pour programme dañ ko falon pour l'injustice dañ ko falon parce que Abdoulaye mo fi togon kilifa ne maa waxoon waxet

ok boobaa benn candidat tey du politique wala du du politique Ablaye Wade. Hmm. les candidats en 2012. Hmm. ñëpp a waroon wàcc comme Macky lu mu defoon dugg si àll bi expliquer le programme. Hmm. boobu laa doon xam est-ce que en réellement programme n'est ko toppee ou pas. mais je disais que en 2012 il n'y avait il n'y avait que Macky Sall pour dire vrai. il était le seul ku nga xam ne. parce il euh, mais y avait mais y avait Tanor il y avait Tanor y avait Moustapha Niass et en hein? d'autres. niveaux ngi tamit si euh, est-ce que politique bi. wax nga ko ci biir say wax nga ne au moment où ay nawleem toogoon fi di xex pour troisième mandat moom mu dugg si àll bi dem expliquer di programme am. moo ma leen ne gisuñu woon kenn ku dul mom sur ce contexte rek justifié na que ne candidat yu leen intéressé moy le départ de Abdoulaye tok Dakar di sànni ay lui il a très tôt compris que cette conseil constitutionnel du mom moy tax muy reculer. Hmm. il a pris ses bagages pour dugg ci àll bi dem battre campagne. Hmm. comme que nag Sénégal yi gisuñu kenn ils vont voter pour lui. ñew na nak bon indi ay ay style de revendication comme ni ko waxé créer ay OFNAC ay. créer voilà pour pour xeer bon je pense que le programme mais man la personne d'Ousmane Sonko bima gis ak programme pasteur. geuuma ne si jot wala xelu defante. si si si si parce que si aussi si si na si si si ah, parce que ñom si si si yégué si si li nga yàqu-yàqu yi daal di ko fi dindi pour loolu nag faaw ñu daal di war a mën a ah, xool mais ñu laal leen xaalis réew mi yàqu mais ñu laal leen xaalis réew mi faaw ñu daal leen poursuivre quand même mais loolu nekkatul Ousmane chose à encourager quand même loolu nekkatul leader pour la future président buy gagner les élections xam nga lu muy doon c'est la justice Sénégal loolu mooy rôle justice loolu mooy rôle roi. Mm, loolu mm. je pense quel que soit le futur mm, président de la République. mais c'est avec instruction du président. quel que soit le la justice va euh, s'autosaisir avec l'instruction du gouvernement ou bien sur l'instruction du gouvernement. quel que soit le futur président de la République il est évident cour des comptes ñi nga xamné ne épingle nañ ce cour des comptes mu jox ñu si des lumières milliards yi nga xamné ne que yag nañ ko cité si nguur bi mu nek lu nga xamné yag nañ daan quel que soit le futur président. Hmm. il doit nous apporter la lumière sur ce dossier. parce que gëm naa ne candidat warul dugg ici, si àll bi dem defi campagne tant qu'il n'a pas expliqué les Sénégalais sur ce dossier. te loolu aussi je lance un appel. Hmm. à la population sénégalaise. Hmm. ñu accepter ñew tay porte confiance n'importe quel candidat bépp candidat bi nga xamné jafé jafé Sénégal yi nga xamné noté nañ ko.